وبالهدى bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa mbokki Majmahun Nurayni ñu ngi leen di baax di leen ziyaare di jiital ci nuyu bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaan suñu yàggal ko loolu tànd bu wér di ñaanal mbokki taalibe yëpp nga xam ni ñooñu ànd ak ñun ci émission jaalibatul burur seen mbokkum taalibe Zaid Ba di ko euh, bu nekk ci euh, site internet bi di Majmahun Nurayni TV nga xam ni mbooloo Majmahun Nurayni ñoo koy taxawal di leen ziar baax di leen ñaanal tawféex comme ni ngeen di toppee émission jaalibatul burur ci dimanche bu nekk rek ñu ngi jégalu baax nag ci jamono yi yëpp mel ni dafa xaw a taxaw xëy na dañoo nekkoon ci yeneen yitte ak yeneen activité moo taxoon di eh, ziar bu baax sëriñ Moustapha Guèye mi nga xam ni moom lañ fas yéene dalal tey jii di suñu mag di suñu mbokk taalibe di boroom xam-xam di koo xam ni yaakaar na ñu bari xam nañ ko ci ni muy eh, wesaaree xam-xam ci mboolem fànn yépp nag yaakaar naa ñi suivre internet bi ci lu bari jëm ci réseau yu baree bari ci internet bi di ngeen gis am njàngaleem ci mboolem fànn yu bari ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax yaakaar naa mboolem kuy kuy kuy gëstu moom ak di jàng ak bëgg a xam ci fànn yu bëree bëree bëri boo koy topp moom fànn yi bëri boo kiiwoon rek même boo bu fekkoon nga fees sax di dina la dolli ndax di Sëñ di wax ci nëx ju rek maanaam téere la boo xamante ni kii doog a tàmbali mën na cee jariñu kii jàng ba jeexal tamit mën na cee jariñu kon Sëñ Moustapha mi mel na ni taxawaayam boobu moom lan lañ seetlu ci moom jàngat boobu lañ am ci moom képp koy topp rek mboolem fànn yu bëree baree baree baree bëri diñ ci di di diñ ci xam lu bari ndax comme ni ñu ko waxee rek yamul rek ci euh, maanaam xalaqi la waaye mel na ni sax jëm ci xeeti taalif yoo xamante ni mel na ni man yu bari daanaka ci moom laa koy déggee wax dëgg yàlla kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfeex defal ko xéewal ci noonu muy tasaar yi xam-xam di ci liggéeyal lislaam di ci liggéeyal suñ Tuubaa Xaadimu Rasuul euh, ñu bokk ak moom dëkk fii ci Medina Fall di rafet lu baax ci dalal gi ñu ko dalal mboolem mañ moo noor tamit suñu Moustapha ñu ngi lay ñu ngi rafet lu baax ci dalal bi dalal liggéey bi ñu ngi ko ànd ak suñu baara ak suñ mbàkke mi nga xam ni moo ne ci caméra bi kon xam naa dañ lay jox nga nuyoo rek bu ko defee ñu doog a dugg ci euh, euh, i'laanul mawduu bi leeral mawduu bi ñu fas yéene waxtaanee bu ko defee ñu bàyyi la kàddu gi mmh. auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alladi qad satara maaibi wa kaana wa nasara سبحانه ربا كريما جاده لي بما لشكره قد قاده فهو الذي جعل حسن الأدب يفوي جهالة وخبح النسب وقص أهل العلم والآداب بالفوز بالصواب والصواب ثم الصلاة بسلام راق على الذي ارتقى على البراق سيدنا الداعي إلى الخلاق بأسن الآداب في الأخلاق محمد وآله الصباق وصحبه الحاوين فضل الباقي asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ngeen mën di ci biir réew mi ak biti réew ci wàllu àddina ñu ngi leen di nuyu di leen jaar ñaan kàddu yi yàlla nañu fekk ci jàmm di nuyu tey jaar mboolem kilifa yi lislaam yëpp di ci jiital ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom doolu ko fay yàggal kilifa lislaam boobu waaye di nuyu faawu tey jaar Cheikh Mouhamadou Moustapha Lo nga xam ni fan fi rek ci ndigalam la ñu nekk te moom joxe na ndigal ci mboolem bu baax di nuyu tey jaare sëñ Seydou Ba. ñu mm-hmm. ko waxee léegi rek suñu jëwriñ suñu bokk bi suñu wéttal. Mm-hmm. suñu borom dogal muy bëgg xam lool te ci dox mm-hmm. mboolem maj ma xamu ren yëpp yëpp nga xam ne booloo lañ mu booloo. ngir leeral pàkki suuf ci njàngaleem sëñ bi rawatina jotaay bi nga xam ne moom jaalu batul bu róor lañ ko tuddee. di ci woo ay borom xam-xam ngir bëgg a yaatal tasaare wala yaatal njariñ ci mboolem jullit ñi mboolem ñu defi kon ñu ngi leen di nuyu nam gën a seetla delluwaat ci Seydou Kàddu incha allah waaw kay jërëjëf suñu sawaa ñu ngi lay fay ab nuyoo bu baax a baax di lu sa teewaay bi di sant bu baax ci ni ñu ko jàpp ndale mel na ni biñ ko waa biñ la ko yëgalee yàggul waaye daan nga da nga ni noonu lañ ko bëggee rek bu soobee yàlla dinañ ko doxalee noonu kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax baax kon ni nga ko waxee ginnaaw émission jaari bu buruur dañ ciy daral ay boroomi xam-xam di xool thème yi nga xam ni moo gën a méngoog jamono te lislaam ginnaaw wax na ci lépp sëriñ bi tamit mel na ni ci fànn yi baree baree bare wax na ci moom la ñuy tànn di ci fas yéene jëriñ mbokki taalibe yi chaîne la boo xamante ne tamit mel na ni njàngu mañ mox norin moom lañ ëpp lañ tey wesaare moo xam ngont yi ñu faral di def ak euh, ak ziar yi def maanaam foole mbooleem fu mañ ma xoonoon daje di jàng ci chaîne bi lañ koy jàllale waaye dañoo dem ba gis nii waruñoo yem ci wesaare xasida yi rek waaye ginnaaw sëriñ bi dafa def an nazm wa wa chanre nga xam ni na téere yi nga xam ni moom lañu wooyee téere nazm yi mooy téere xam-xam yi ñu ni kon faw ñu ñu boole ci di jàllalaale lu jëm ci wàllu xam-xam moo tax débat yi ñu koy faral di euh, euh, taxawal boolem boo xoolee tamit site bi tamit ñu ngi ciy jàngalee tasawudu sixaar mhm. tàmbali nañ ko mhm. ci di ko jaare ci beneen fànn nga xam ni mhm. dañuy boolee ay bayit yu bari tënk ko tënk maanaam yi nga xam ni ku déggul arab wala ku ferul ijji dina mën a xamee diinam ci côté boobu kon moo tax ñu la doon euh, ñu la doon euh, kiyaale site bi rek doon la ko doon la ko kiyaale noonu leeralaale noonu bu ko defee tey suñu mawdoo tey mi ngi jëm ci fawaidu nasral ilmi fi l internet wa fi jamil afaq maanaam njariñal wesaari xam-xam ci internet bi ak mboolem gox yi rek comme ni nga suñ bi waxee ci saxaaba yi mooy wa wa wa kashafu du janatal afaq bil ilmi wal ñoom saxaaba yi dañoo wiññu woon mboolem gox yoo xamante ni maanaam goxi réer la dañ ko dañ koo dindi leeral ko ci xam-xam ak jëfe ak dëppoo waaw moo tax nag kon ginnaaw euh, xam-xam moom mooy lii wan nit ki aw yoon ba mu mën a xam fi muy teg tànkam nuñ ko mën a wesaaree ba nit ki nit ki jot ko rek maanaam baax na kon nag mu rawatina nag jamono jii fii ñu toll nga xam ne muy nouvelle technologie yi mel na ni kon dañoo seetlu ni nit ki daan gàddu kayam dem ci oustaz mu jàngal ko lu jafe la léegi wala mu dem ci daara ji ñu jàngal ko ndax boo xoolee li ëpp ci nit ñi li ñuy passé seen temps ci internet la kon mel na ni foofu mooy mooy jihaat ji fi mu toll nii mooy fas yéene di fa jàllale lu baax rek ndax ñi nga xam ne dañuy xeex lislaam jël nañ seen waxtu yëpp ak seen alal seen lépp def ko foofu ngir wesaare fa lu bon ngir mën a réeral nit ñi képp ku bëgg a liggéey lislaam tamit yaakaar naa sa temps ak sa waxtu maanaam foofu nga ko fa euh, ci kuy gëstu xam-xam foofu nga ko war a féetale ngir jariñ nit ñi te loolu nag gis nañ si Moustapha mi mu def ci liggéey bu rëy rëy rëy yàlla xam na ko loolu te yaakaar naa bi mu ko commencé doonul jamono yi yàgg waaye fi mu toll nii ay vidéo am ak yi waxtaanam mi ngi jàll daanaka ci réseau yu baree baree bari man damay dem ci yeneen site sax di ko fa gis mm-hmm. Mm-hmm. kon loolu ñu ngi la ciy ñaanal suñu borom defal ci tawfeex mm-hmm. kon mel na ni kon thème bi ñu ko tànn jox ko ko kon maanaam yeeyoo ko kon suñ Moustapha loolu daal lañ bëgg tey nga indi ñu ci ay ay leeral wesaare xam-xam ci internet bi ak ci mbooleem gox yi rek fexe ba nit ñi maanaam mën a xam seen diine ci ci ci réseau yi bare bare bare bari bisimilah tafadul jërëjëf sëñ Seyid mm-hmm. ni nga ko waxee noonu xam-xam dafa nekk lu gànjaru loo xam ne mm-hmm. nee neen xéewal gépp gi suñu borom di may ab jaam xam-xam la mm-hmm. am na ko laajoon salawaatullaahi wa salaamu alayhi ni ko képp ku bëgg àddina ku bëggoon àddina am àddina loo koy digal yonent bi ni ko xam-xam mu ni ko ku bëgg àlaaxira nag yonent bi ni ko xam-xam leen boole bëgg ñoom ñaan yëpp yonent bi ni ko ba tey xam kon doomu aadama li ko indi fii ci àddina mhm. dafa war xam ne ab mission rek la mu am waxtu woo xam si dañ ko koo waxtu woowu nag bu la neexee nga séddale ko ci ay at wala nga séddale ko ci ay weer wala ay bis mhm. wala nga séddale ko sax ay nokki ni ko waykatu arab bi waxoon ni fa laylu wa nahaaru kilahuma anfaasuna fihi tuaddu wa taxsabu mhm. guddi gaa ngi jàll ak bëccëg ñu jàpp ni day dem noonu rek ndekee nooy yi ñu bindaloon kenn ku ne mi milliards yi nooy wala nangami kii. Hmm. am na foo xam si fa lay yem bu dëgmalee laa yastaqiruna saatan wala yastaqdimun hmm. boo yoree loon suñu borom benn nokki boo xam sax waroo koo nooy ci àddina comme ni nga ko moom xëcc la àndal ak delloowaat. Hmm. waaye soo xëccee nooyi gi sax sa dog maanaam da gis ñiy sang néew ñaare bu këppee ndox ñu gis ko mu nooyiwaat mm-hmm. mu doog a àjji nooyi boobu nga xam ni bartaq rek la ko war a nooyee woon biti mm-hmm. àddina mm-hmm. kon diggante boobu nag dafa war a xam islam baat baat mënoo koo wër ko jël dafa war a xam nan la bëggee nan la yàlla bëggi koo nekk ci kaw suuf loolu waral yonent yi suñu borom doon yónni ayat alquran yi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaaba wal hikmata laqad manna allaahu alal muminin is baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum kitaaba wal xikma ay ayaat yu bari la yoo xam ne loolu fi indi woon yonente yi mooy ngir nit ki xam lan la yàlla na mu ci moom yooye nag su ko seetee itam du génn ñaar yi mooy wabtaxi fii ma ataka allaahu daaral axira wala tansa nasibaka mina dunya mm. mooy nga taamir àddina ci ni gën a rafeta nag ndax àdduna yi fi suñu boom def yëpp yuñ war a dundal la garab guñ fi roosewul mu faatu mm-hmm. ndaw lu ñu yarul mu yàqu mm-hmm. ndox mu ëggul mu tax nangam maanaam loolu moo tax dama dama saa day fuglu maanaam mbir mu doon mu nekk faaw mu nekk ab saytukat mm-hmm. ndax suuf suñu borom bu ko neexoon mu bindee ko na bindee malakut malakut ak mu foofu amul lu ñuy yeesal wala yooyu maanaam doo fa romb dara mu dee garab gi dee amu fa luy aaju woo ñu roose ko wala wett wala yooyu amul Eh, suuf la suñu borom melal noonu kon doomu aadama bu ko suñu borom yebalee suuf da koy fexe conserver hmm. malaaka yi sax waxoon nañu suñu borom ni ko ñi nga fi yebal dañ koy yàq hmm. ndax ba nga xam ne nee na ji jinne fi njëkkoon a nekk yàq suuf si suñu borom jëli leen fi wax malaaka yi nañ ko defaraat defaraat géej gi defaraat lépp ba ba suuf mel na mu wara a mel hmm. suñu borom ni leen kii laa fa jëmee bi yoon mbindeef moo fi indi basar lay tudd inni xaalakum basar mm-hmm. mu def may eh, yabal basar lay tudd mm-hmm. malaaka yi ni ko ndax dañ fay nar a yabal ku yàq suuf la tax mooy malaaka gisoon nañ biñ indee jinne yi mm-hmm. te malaaka ñoom jàppoon nañ ni ginnaaw jinne yi mataluñu kóllëre suñu borom googu ñoom nañ ko war a matal ndax wa nax nu nu xam bi xamdika wa nu xaddisu lak ndax da nga suuf ku ko yàq su borom ne inni a'lamu ma la moo tax défi bi njëkk am xam la suñu borom ba malaaka yi waxee rek dañ leen inni alam maa la taalamun mm-hmm. ba loolu yëpp àggee wa allamal aadama asmaa kullaha mm-hmm. ba tey waa allama baatu xam-xam yaa ngi koy dégg mu xamal aadama ne mm-hmm. an bi uuni bi ba tey xam yaa ngi dégg baatu xam-xam bi ni mu mel ci biir nga xam ne kon ci la suñu boroom tënk àddina mooy ki ñëw nag léegi day xam mission bi tax suñu boroom wàcce suuf yooyu nag buñ ko séddalee mooy taamir àdduna bi wax naa ko waaye côté bi ci des mooy wala tam sa nasibaka mina dunya mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy ilaahi ji mooy fexe itam mm-hmm. jaamu sa borom même dundal ngay dundal suuf sax dafa lëkkaloo ni la ko yàlla digale ndax tey boo xoolee bu doon loolu rek sa xel day xaw a daal ci tubaab bi fekk tubaab yi topp na mu xam-xam ci genn wàll rek fekk xam-xam dafa waroon ànd ak bismi rabbika dañ ko waroon a lëkkaleeg maanaam seen di yi gratte ciel yi mm-hmm. ñun defar yëpp dañu waroon a delloowaat ci mu ñu gën a gëm suñu borom mm-hmm. ak boolewaale ci di ko jaam mm-hmm. ndax loolu mooy mission àddina léegi nag ñii dañoo féete ci genn wàll gi lool ñenn ñi tamit Seydou féete ci wàllu jaamu yàlla gi lool bàyyi àddina ba tax na sax ni nga xamee ni si woote bi yonent bi noonu la waroon a demine ak mag ñu baax ñi tey dafa am benn décalage bu ci nekk boo xam ni àggul na mu war a àggee. Mhm. ndax àddina saa bu soxla woo nga jël kàddu gi rek koy mën a jël delluwaat ma ndax àddina. Mhm. su borom ni ko liggéeyee téeméeri at yu nekk day soppi. Mhm. téeméeri at bi nga xam si moo nekkoon la jiitu 2000 xarnu boobu. ci la Sëñ Tuubaa dund. ak mboolem mag ñu baax ñi ngay dégg ñëpp. ñoom ñëpp sëñ Daam Abdou Rahman Lo. sëñ Mbàkke Buso Mm-hmm. maam Thierno maam sant borom gaawaan ba mu àgg Sidi Hadj mm-hmm. maam Imaamu Laay ñoo ñëpp ci benn xarnu lañ dund mooy xarnu 1900 jafe na nga gis ci kenn ku wàcc liggéey avant 1900 mm-hmm. ñu bari ñoom xarnu 1900 boobu ci lañ dund xarnu boobu di dox di dox di dox dox ba 1999 mu jeex beneen xarnu tegu buy tuddee 2000 xarnu bee nga xam ne moo doon dem xarnu dër la wa taqwa mhm. ku ne xam na ni yu bari yi ngay gis ni amul woon mhm. yar ndaw dafa mhm. yomboon saa boo demee ci bërëb boo xam si ngénte la wala yooyu koo xool ci loxoom téere nga fay gis dangay gis mu yor mu dawana wala mu yor ibnu duraydin wala mu yor risaala maanaam booba loola la nit ñi xam dañuy ci seen diine xam na boobu bi mu dem bi bi muy dem dafa yóbbaale wàll googu mooy indiwaat di benn wàll goo xam si mooy yii ñu tiim mooy technologie. Mm-hmm. tey mm-hmm. émission bi ñu ko daan def da ngay gis ñu indi téere yi ñu war a waxtaanee waaye tey. Mm-hmm. lépp day nekk ci sa téléphone rek. nga xam ni baax yi ngay def ak. yëpp day nekk ci téléphone. kon léegi nag nan la ñu war a def ba jël xam-xam yi ci kàggu yi. indi ko ci technologie bi ndax xale yi ñoom ñëpp ngi ci technologie bi te ñoom nga bëgg a xamul ñëpp ñu ngi ci biir technologie bi te ñoom nga bëgg a xamal ñi réer ñu ngi ci te ñoom nga bëgg gindi waaye tey nan nga mën a gindee koo xam si fa mu nekk ak fa nga nekk bokkuñu. Mm-hmm. fenn rek nga koy tëru di ko xaar mooy ajjuma ba ajjuma su mm-hmm. ñëwee nga imaam bi def benn xutba te xutba bi mën naa am sax doon arab. ñu bari duñ ko dégg. ñu cee xam. bayaan bi itam mën naa am ñu bëree bëri moom dañuy déglu ba keroog bayaan bi wàcc rek. Mm-hmm. ñu ñëw ndax taxadis bi ni mu war a méngoog jamono. ñu ci bari du méngoog jamono. su ko defee kon ñoom duñ ko mën a dégg. kon léegi nag li war mooy xam-xam boobu suñu borom bëgg doomu aadama mel ko ci kaw suuf. am ñu ko porté woo ginnaaw bi ñu amee wàccaay yu nag yoo xam ni tey adduna eh, du leen dévier ndax tey bëri waa na ko jug dugg ci internet bi ngir xam-xam mm-hmm. waaye day mujj ngir ngir yaatal xam-xam waaye day mujj dañ koy dévier ci leneen mm-hmm. di ko publicité loo mm-hmm. léeg sax ñun ko tontul diw dégg nga dégg nga di wax tontu ko wala nangam nga xam ne kooku wàcc na yoon wi te yëgu ko fekk moom toujours dafa war a nekk ci ligne de conduite boo xam si moom dafa ñëw participer ngir feeñal xam-xam ngir nit ñi mën cee jariñ am na am nañ ci aw desu rëy rëy rëy ndax ñu bay dañoo jàpp ni mhm. boo nee nit ñi Facebook ñu ne ah foofu moom Facebook mbedd la mhm. moom moom du ma fa dem ñu may commenté di ma wax nu ma naqari mhm. boo nee YouTube ñu ne ah, saa yooyu daal moom amul solo man daal ku bëgg xam dara da ngay ñëw sama kër ma jàngal fekk nag boobaa nag loolu day day day day day day gàttal ndax da gis kon eh, ay millions yi ay millions yi compte am kon bu la neexee ngeen tey Sénégal ñi nekk ci biir réseaux sociaux yi ñoo ëpp ñi ci nekkul mhm. ndax dangay gis kenn koo xam si day def benn vidéo jàngale ci njàpp misaal ko ni faratee njàpp juróom-ñaar la mhm. wax ko ci wolof ni ba ca njëkk mooy nga yéene mhm. raxas sa kanam raxas say loxo ba sa conco masa gaaw ak ragg ga teqale baaraam tànkee su ko defee day yomb mu ko mooy liir na ko ni waaye dangay gis mu mu cliquer ni man bëgg naa mooy j'aime bëgg naa li mu wax ni wala gis kon la waa sa waaye man kon ni ma daan jàppee maa ngi daan toj kii bi man yéene mooy lan nga xam ni moom kooka moom bañul. Mhm. ba noppi dafa am benn rupture bu am jàng jafe. Mhm. école yu war jàngee diine wala yooyu. Mhm. amul situation boo xam si tey nit day ñëw mën dugg jàng diine ba mu neex ko loolu amul. kon jihaat gi waar mooy. ñu ñu ñu fekk leen foofa nag. bu dee tubaab lañ jàng bu dee espagnol bu dee arabe lañ jàng même bu dee alxuraan la jàng. ñu wax leen lan mooy farata ak mooy lan mooy sunna. lan mooy tawxiid mooy xam-xam bi nga xam ni mooy jiitu ci. Eh, mukallaf mm-hmm. mooy jiitu ci diine dara mënu koo jiitu mm-hmm. tawhid ak jaamu mënu koo jiitu dara mënu koo jiitu mm-hmm. moom moom mooy njëkk a jiitu awalu maa yajibu eh, awalu maa ajabahu rahmaanu qatan alal mukallafi l iman nga xam ne si di ko ni ko laxdar yi waxee woon awalu maa yajibu kon léegi yooyu yëpp nag am na ñoo xam si boo ne leen tawhid sax ba noppi itam am na benn galgal bu ci nekk mooy nit ñi dañuy wax baadi ci arab wala ñu wax ko ci tubaab su ko defee itam mm. boobaa mm. ba tey gaañ dañuy xaar xam ne yaakaar ni bokk bu fekk ñoom li ñuy wax ne bokk nañu ñoom ñoo ko moom mm. lan mooy tawxiid mm-hmm. boo defoon micro trottoir lan mooy gis na tawxiid tawxiid daal xam nga ko waaye boo nee leen nag tawxiid mooy ak gëm yàlla mm-hmm. dafa am loo xam si tey nit ki foofu la war a teg suñu borom noonu la ko war a xamu ko mënu ko xam 100 pour cent mm-hmm. waaye am na yoo xam si yooyu bu ko jàppee dañ koy nangul ni moom xam na suñu borom yooyu ba ci jiitu mooy nga xam ne ku am la ba noppi moo fi jiitu lépp mm-hmm. te bu fi lépp jógee moo fi des du fi jóg mukk mm-hmm. ku am kàttan la mm-hmm. ku am nameel la ku am xam-xam la ku wuuteeg mbindeefi la yooyu boo xoolee mooy liñ doon jàng rek ci taw it ci arab bi comme ay xodratu iradatu euh, wujud xidam baqa wala yooyu waaye boo ko waxee noonu da koy mën a lem ci baaraam yi ba ñaar fukki fa yi ñuy wax yëpp mat sëkk su ko defee moom kenn gënatu koo xam yàlla ah, kii koy wax ci arab ak kii koy wax ci kii moom wolof la mm. moom xam na ko léegi nag ñu ëpp ci nit ñi mm-hmm. te léegi nit ñi ba tey raccourci lañ bëgg bëgguñu nit ñi dangay xool maye sax boo teewee léegi ci maye wala yooyu nit ñi bëggatuñu ku téye seen temps dara ndax àddina bi ni muy doxee mm-hmm. koo tiil ñaari minute rek day mel ne yàggam dangay gis koy woo sax ko jëlal kii jëlal bi nga jël numéro mun la non ça yónnee ma ko message mm-hmm. parce que dañuy yàkkamti ba kii su nit ñi toogee ci kii nga gis ci maye wala yooyu téléphone yi sonné mm-hmm. ngay dégg maa ngi ñëw damaa am kii kii nga gis téléphone yi sonné kon nit ñi dañoo yàkkamti mm-hmm. kon nag tey ñëw di indi darsi yu gudd yi itam du ko jaar saa su ne dugalal leen loo xam si mën nañ koo jariñoo ñu téye ko su ko defee ndax doomu aadama kat cërub yàlla dafa nekk ci moom lu mu am am am alal lu ko àddina wër wër wër tam xamul ni muy jaamoo yàlla na jekki-jekki léeg roogi fudd fàttali ko lool. xëy mhm. na sa koo xam ne man daal xam naa ni benn erreur daal moo def sama na mooy li ma jàng. Mhm. Mhm. wala li ma xamul sa biddéew. bari waaw kon nag dangay xam ne kon nit ki mënu koo ñàkk. bi ñu xoolee fu mel ne Japon wala yooyu gis nañ fa ay nit ñoo xam si dañuy jékki xaaru ak ba ci tubaab yi sax dañuy ci gis koo xam si mën naa bari la loolu mën naa doon sax milliardaire. waaye day toog mboolem luy xeetu bànneex am na ko am na euh, oto am na. avion. Mm-hmm. am na lépp am na jet privé. Mm-hmm. mais day jékki-jékki rek xaaru bu nit ñu xoolee gis ay comptam gis ay biens ñu mm-hmm. fekk fekk tekki néegam gis mu dóor boppam balu fital wala mu jëfandikoo lu ko kii. fekk dafa am lu roo gi manqué. di ko laaj te mënu ko koo tontu. mooy ndax wa nafsu ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi. mooy moom nag dafa jaarul ci tarbiya. roogi dundalu ko dara dara dara ba hmm. waram yi yaram yi jékki-jékki di yéeg di yéeg bàyyi roogi ci suuf di ko yéeg di yéeg ba léeg-léeg saa bu roogi fëddoo ni ko mënuma fee bàyyi hmm. day xaabandi ko ci kaw dal ci suuf ngir fekk si roogi maanaam day xaru hmm. loolu nag ba tey mat na cee bàyyi waale xel ni doomu aadama fu mu jaamu yàlla ak topp ko wala yooyu dañ koo mooñaale moom mënu koo bañ koo gis am na lu mu jàppe yàlla ñu jàppe nañ ko nag ñi xar lañ jàpp ne mooy yàlla ñii naan waaye mm-hmm. xam nañ rek mënta ñàkk moom ba ut nañ loo xam si moom lañ ko misaale mm-hmm. kon nag doomu aadama bi faaw ñu yar ko kindi mm-hmm. ko mu doog a eh, gindeeku te lool li ma ci tënk nii war na cee doy ci nii bu njëkk xam-xam dañ daan jug di ko uti ji fan ko doon uti ji di tàgg kàggu yi ni ñuy xamee ni léegi bind doxatul rek mën nañ koo xam ndax ñu ni sunu génération ak ñen jiitu woon ñu ci kenn ku bind téere mhm. ñu néew maanaam eh, maison yi audité ah. xam nañ sax ni nit ñi binduñu mhm. bi ci des tam mooy lañ bind ba ci bibliothèque yi xam nañu nit ñi liiruñu loolu kon bul sonn foofu léegi nit ñi ñi ngi leen daan misaalee léegi bu njëkk mhm. léegi dañuy bëgg a gis li ngay wax nii maanaam dañ koy bëgg a dund nii yow imam bi bul nekk leen xaar seen kër duñ fa ñëw yow sëñ bi bu leen xaar seen kër duñ fa ñëw waaye boo defee benn vidéo nag moom ñu jot ci boo leen ko adressé ñu jot ci léegi bul ma cax naan ma ginaar guy tàngal kafe mhm. ngir sama xel di màcc wala yooyu mhm. ginaar guy tàngal café maanaam loolu nu mu mën a nekk mhm. léegi man boo ma waxee ginaar guy tàngal kafe dama lay wax ne nataal boobu man mas naa koo gis sama téléphone ñeenti baat la boole ñeenti tur mooy ginaar ak guy ak tàngal bi nuy màcc ak kafe maanaam muy gunaar bi tàngal café gis nga tey ni la ko misaal nataal bi looloo gën a gaaw ci nit mooy soor dañ la koy defal ay soor ni dañ ay soor moo tax léegi nit ki loo koy wax da gis moo ne ko saa yi kii ko nii ak nii lay mel bindal ma ko mun la photo ko nga yónnee ma ko mm. mooy léegi ah. jóge nañ ci téere ku ne xaar ci téere nii pour nit ki dem xam ni mm. ah déedéet loolu bu bu doon tey ñi xam <laughs> kenn liiruti mm. <laughs> ñun néew ñooy liir ba noppi itam mu liiree ñu néewee xam te loolu nag bu njëkk liir la woon ndax ñun ñii tey fi mu toll mm-hmm. nataal yi ñuy def nii mm-hmm. euh, suñ ko deful woon dañuy bokk ci maanaam dañuy bokk ci ñi àdduna di suul ndax hmm. téeméeru at bi ñu nekk téeméeru ati technologie la hmm. te loolu bu kenn jàpp ne tubaab yee ko def ci programme suñu borom la hmm. tey jii ñoom su dee ñun jëfandikoo wuñ ko nii mhm. àddina dañuy suul bari tey mhm. borom xam ci sunu jamono bii mhm. boo xam si su nelawee su dee amul benn nataal bu nit ki mën a seet ci internet gis ko fa amul compte bu mën a dugg fekk fa ay waxtaanam lu mu bari woon xam-xam àddina suulaale na ko du feeñ te tey jii nag ku mel ne Sëñ Sam tey ñi nga xam si bi muy gane àddina bi muy bi muy bi mu fi bàyyi ko 1997 sax gane woon àddina ñooñu ba tey ñu ngi jariñu ko waral mooy dafa liggéey ci technologie mooy xam-xam bi da koo yàq ci kii bi. Hmm. kon nag foofu rek la ñuy xaar doomi soxna yi. wallaay eh, te jafe-jafe yi ci nekk itam buñ ko ragal. mooy hmm. jafe-jafe yi nga jug ngir wax lu baax am ñu lay wax naka sudul noonu. Hmm. wala kii nañ xam ne ndekete la nekkoon moo sot moo moo wóor quoi ndax mu njëkk kilifa yi. dóor nañ leen ngir lislaam. mel na Imaam Malik daj na ay jafe-jafe loolu ngir lislaam ba Cheikhul Khadim mii rek ci mm. mujj yi ñoom ñëpp ak mag ñi fi nekkoon dañ nañ ay jafe-jafe ngir tasaare gi noonu tasaare mm. diine kon tey ñi leen donn mm. lu tax ñu war a bañ ku leen saaga dong ah, ngir lislaam te mm-hmm. saxaaba yi ñu leen daan rey ngir lislaam te àjjana jën bëgg mm-hmm. nga bëgg ku sañoon àjjana yi saxaaba yi dëkk ngay dëkk waaye nag yow nangu sonnal diine lu tolloog nit commentaire la rek saaga la kon kan la diine jaralati sax mm-hmm. ab deram kon li ñuy xaar doomi soxna yi ñoom ñëpp mooy kenn ku ne li nga jot a xam ci xam-xam nga xam ne mooy jëriñ société bi mooy tabaxaat réew mi mhm. nga tijji benn compte wax ko fa même buñ ko jëriñoowul ñoom mhm. mhm. boobu saa bu jamono interpellé ni yow lu lu Seydou lu Seydou Ba lu lu lu lu mu participé woon ci ni tabax réew mi ñun la am na benn émission bu tudd Jaalibatul Buruur demal nga seet ko nga dem seet ko su ko defee yow mën naa am sax kooku doon sa sitaat ne sama maam kon fii 27 ans la war a toll 30 ans la amoon bi muy def lii ndeysaan déglu li wax su ko defee moom mu ngi dund nii yow xëy na bindoo téere mhm. waaye jël nga li ci téere yi ba tey tamit exposé mooy def nga sa waaru gar kon na ko nit ñi déggee noonu mhm. nañ bàyyi kàggu yi fële ak di bind ay notes mhm. ngir bëgg nit ñi liir ko te ñëw jël oralité bi bi nga xam si moom moo am ak nataal yi tamit image yi nga xam ne tey looy wax nit koy gis image image moo nu wan lu ne gis nañ koy sukuraat Eh, sunu mag ñi doon mm-hmm. jàng ci téere yi sukuraat yooyu naan la sukuraat nii nii la mel jamono nangam ñun léegi image yi dañuy wan kuy sukuraat nii ñu seetaan vidéo mm-hmm. dëgg la jigéen juy mucc ñu nga mm-hmm. ko daan jàng ci yooyu ñun image yi dañ koy wan image yi wan ba wan kun tëral di rendi sax nga xam ni kon image wan nañu lépp kon léegi liñ bëgg a xam kon kun ko bëgg a xaman maanaam ñëwal ci nataal yi nataal yi ba ci misaal ci Sëñ Saam rek waaw su dégg nee nañ biñ ko laajee mun leen mbind mel na day yokk day yokk jal bi rek. waaw waaye kaset yi moom buñ ko buñ ko amee. waaw comme son yi ñu daan enregistré. waaw ku ko topp di ci jàng di nga ci xamee loo xamante ne mel na doo ko fekk ci téere yi yaakaar naa gis nga comme ñi jariñu ci sëñ saam mhm. ñun ñëpp fekke wuñ yaakaar naa yi jamono déedéet waaw ñu bari jamono jariñu jariñu nañ ci xam-xam te li ko waral maanaam internet mel ni moo ko waral internet bi rek ko waral mhm. ak sëñ Saliou Sow sëñ Saliou Sow waaw gis nga ko moom itam mhm. ak Mouhidine Samba Diallo Samba Diallo ko mel ne imam Aliou Badara Ndao waaw ñooñu ñëpp li tax ñu immortaliser seen jamono mooy dañoo jëfandikoo jumtukaay boobu mm. jumtukaay bu nit ki jàpp ni tubaab ko defar bi suñu borom namee mu agsi mm. da ngay gis tàggatu gi mu ci njëkk def moom suñu borom mooy noir blanc amoon mm-hmm. nit ñi di ko gis nii waaye suñu borom bëggul àddina raw ñu mm-hmm. te mun ñoo jékki-jékki rek téléphone yi jékki-jékki wul rek mel digital bi mel nii mm-hmm. eh, nga xam ne ay empreinte di ko tijjeeg nga xool ko reconnaissance faciale muy tijji ko melu woon na téléphone yi njëkk am xam nañ ko bi suñu borom bëggee ñu dugg ci en couleur nga xam ne tey jii ñun ku xool suñu nataal bi da xam ni hmm. lu mel nangam la kii soloon kii lu mel nangam la soloon booba suñu borom da koo tàmbali diñu ko wan ci ay cinéma yi nit ñiy defar hmm. nga xam ne tey dañuy dañuy dañuy dañuy jël ay genre couleur hmm. taal ay sondeel di ko di ko wane ni ci kii bi mel na ñaar ñuy xeex nga koy gis ba yàgg mu indi photo màkka Mhm. xam ne ñi dem màkk bu ñëwee da ngay gis mag moo xam si ne léegi naa dafa am loo xam si boo xoolee da gis kaaba ak yëpp nit ñi ñëw jël photo màkk nii di yër di bës su ko defee naan eh, eh, maqaam Ibrahima ngi nii eh. gis nga boobu suñu borom mu ñuy jëlee nii la nga jàngoon léegi mhm. monde a jeex mhm. waaye daam moo ne bu dikk boo xam si mboolem loo jàngoon léegi teg bët la léegi nag di wéy ba yàgg téléphone yi di dikk di mën a photo ñun téléphone bi mën nga cee photo léegi mu génnee ba tax na sax lool rey na ay kii yu bari rey na ay liggéey yu bari lu mel ne liggéey horloge ak liggéey defar rajo wala yooyu. Mhm. yu bari da koy kii ndax téléphone bi léegi dafa bëgg a ñëw ngir téeméer at yi daal téeméer atu lii la. Mm-hmm. day dem nit ki biy téléphone am dong doy na. Mm-hmm. xaalisam a ngi ci biir. adresse ba ngi ci biir. ki mu soxlaa ngi ci biir. Ah. machine calculer ma ngi ci biir. Mm-hmm. Eh, li muy toilettoo sax lépp ngi ci biir téléphone bi nga xam ne moom. daal téléphone bi rek lay jël dem loolu bari na tey ji ñoo xam si soo ñëwoon fekk leen. boo seetee seen poche xanaa nga fekk carte moom. waaye seen yeneen kii ci des yëpp mu ngi ci téléphone bi. Ah, su suñu suñu départ rek soxna si nii leen da nga fee fàccee wàcc dépense mun la loolu dara léegi demal ci Orange Money bi. Mm-hmm. wala demal ci Wave wala demal ci kii ma envoyé ma yónnee la ko. Mm-hmm. bu njëkk sax boo daan may jigéen téeméeri junni nii la xale bu jigéen dalay wax ni la déedéet lii sama yaay damaa tere xaalis waaye tey ba tey da ngay da ngay may léegi jigéen 1 million mu def ko ci compte Wave am moom yaay ju du gis dara. moom saa su ne mu ci ay kii gi ndaw. Mm. kon foofu nit ñi seen dafa war a gën a gaaw. ngir te loolu moom ndaw ñi moo mag ñi mënatuñ ko moom ndax euh, moom ñoom téléphone bi du seen jamono ñoom daa fekk bi seen bi ñuy am maturé seen xel di mat mhm. ñoom fekk na booba xamuñu téléphone mhm. te dem nañ ba âgé kon mhm. téléphone sax boo leen ko bëggee wax ñu utiliser ko nam kii day jafe lu dul benn benn ci ñoom waaye ndaw ñi nga xam ne ñoom téléphone rawu ndax yor nañu Android yor nañ iOS bi mujj kon ñoom ñoo war a jël nag xam-xam ñoom jàkkaarloog seeni moroom maanaam di leen indi. ndax bu njëkk mag ñee daan gindi ndaw ñi. Mhm. ba yàgg rupture am seen jamono eh, xanu bees bi ñu dagg ko. Mhm. yóbbu ne mag ñi indi ne ndaw ñi nga xam ne léegi gis jotaay boo xam si ay mag ñoo fi nekk ak ay xale dafa jafe. Mhm. jotaay yi ngay gis xale yi ñoo ne seen biir. kon nag ñenn ñu jot a mucc ci seen biir xam loolu ñoom. ñoo war a jël xam-xam nag. di ko jox seeni moroom. am lu ñu ci tàggat. lii nii la yàlla bëgg ku koy mel ci kaw suuf lii mooy tawxiid lii mooy fiq mhm. lii mooy tasawuf mhm. li lii lay doon mhm. li tax ñuy topp wayjur lii lay doon sa diggante soxna ak yi moo fi dox si diggante naa naa man jamono yi rek am na ci waxtaan boo xam ne ay nit sax ñoo la koy jël di la ko wax ni la man léeg-léeg damay ci soxna yi seen ngànt yi bu amee ngànt am na ñoo xam si ne seen i borom kër dañ leen di forcé ngir ànd ak ñoom ci ngànt gi yooyu ne ko loolu ayab alquran da cee wàcc wa yasalunaka anil maxiidi mm. waaye ñu bëree bëree bëri bind ni kon ñoom ñoo ngi doon lakk dëkk bi mm. ndax ñoom loolu jàpp wuñ ko woon dara ci aw góor ak ay jigéen te xoolal loolu nga xam ni nas moo ci wàcc boo xam si mm. wax ma sax yonent bi waaye suñu boom nan ko mun la laajee fa atazilu nisaa fil maxiidi wala taqrabuhunna xataa yataharna mm-hmm. wa bil qur'aani